Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum ba mi ñetti yoon comme saa su na bu ngeen gisee ñu jug rek maanaam ci kàddu askan bi la bu ñu nee askan bi nag mooy li nga xamante ne da leen di neex ak li leen naqari mais tey dafa am foo xam ne tey fa lañ jëm fi jëmaat mooy dafa nekk kër goo xamante ni waaw kenn dootu leen laam ci mim bu nee mim mooy ci biir askanu Sénégal bu ñu nee askanu Sénégal nag mooy bépp doomu aadama ak bépp foo mënti nekk yaakaar naa nag am na loo xamante ni jot nga ko dégg tuuti ci lan moo ci waa ADS bu ne nee ADS nag mu nekk mouvement boo xamante ni jamono jiñ toll nii lëmbee na réew mi bu ñu nee lëmbee na réew mi mooy àdduna fépp foo mënti nekk yaa xam Sénégal nga ne yaa xam France nga ne yaa xam Italie nga nekk yaa xam Guinée Bissau nga ne yaa xam Gambie nga nekk gëm naa ne am na benn ndaw boo xamante ni mu nga foofa nga xamante ni tey jii taxaw na ngir nekk fi nga xamante ni moo di ADS ADS nag mu nekk ay jeunes yoo xamante ni ay jeunes gëm seen bopp ñoo fa nekk nekk ay jeunes yoo xamante ni jeunes yi am talent ñoo fa nekk bu ñu jeunes yi am talent mooy saa su ne dañuy gëstu li nga xamante ni moom la askan bi di joytu ñu leen koy xeexal ngir bëgg seen réew mën a jëm kanam tey jii nag ñu togg ki nga xam ne mooy suñu secrétaire bi nga xamante ni nag mu aar waaw kenn doon ko présenté ci mim réew dañ koy bàyyi moom mu nuyoo nijaay ñu bàyyi la nga présenté wu nga wax ñi nga xamante ni yow ñoo lay seetaan jëwee kan waaw asalaamaaleykum Amara maa ngi nuyu askanu Sénégal yëpp ñu nekk biir réew ak bitim réew tudd Souleymane Fall di secrétaire général ADS ADS di alliance du développement du Sénégal lépp lu muy yëngatu mooy maanaam taxaw ba jël nguuru Sénégal kat Sénégal nga xamante ne mooy sunu ci ay jafe-jafe yoo xamante ne loolu ay kuréel yu lëkkaloo muy ay mouvement ay association fii ci biim réew ba ci bitim réew Njaay yàlla rek koy buur ngemb ko fas yéene ko yóbbu à la magistrature suprême ci loolu na wax dëgg yàlla tey commission éthique et déontologie bi nga xam ne suñu collègue suñu camarade maam Thierno Diakhaté moo ko jiite moo wootee woon waxtaan waxtaanu biir néeg pour xool ba gën a ñoŋal suñu taxawaay liggéey maanaam muy évaluation xayma fi ñu tolloon parce que ñetti weer a ngi ni kat Sénégal dégg nañu gis nañu Sénégal yëpp dugg nañ fi fi dugg leer nañu ne de askan bi tey jàpp na ne ñii yore réew mi seen wàll jeex na lu ñu leen ñaan rek mooy nañ ko jox ñu lënkee ñu jógee Sénégal mu jëm kanam. tey ñu gis ne ADS ci trois mois ADS yegg na foo xamante ni yenn mouvement yi nekk nañ fi dix ans te li ADS indi. ak li nga xamante ni moom la ADS yëkkati ko ngir préposé ko Sénégalais yi gisaguñu benn parti boo xamante ni dafa nekk ci mbii réew war koo mën a indi askan bi pour askan bi war see mën a jariñu te ñoom ñu nekk fi ay plus de dix ans onze ans ba léegi mënuñoo indi sénégalais loo xamante ni day leer ci bopp nit ñi ADS si biir trois mois mu indi fi loo xamante ni tey jii askanu Sénégal ku ko dégg xam ne carrément kat lii jot na ngi ñu yëkkati suñu carte jox ko waa ADS loo xamante ni yéen lu ngeen gëstu la ba jàngat ko mat ko ba pare indi ko ngir sénégalais war koo mën a taataanal wala nu fa demee waaw xam nga ADS dafa def benn dafa nekk kuréel goo xamante ne ni muy doxee ak ñële bokkul ndax doxinu juróom benn fukk ak ñaar bu indiwul dara ci réew mi moo moo waral réew mi te tagga tembe ADS indi beneen doxalin ki ko jiite laata dara dafa am ay structure yu mu yore di jàngal xale yi naka la ñuy nappee jën jàngal leen lu ñu leen mayee jën muy lu am solo ay junni junni xale ngi ci mi réew rawatina fii département pikin gàcce ngaalama moom mii sëñ Xaadim moo leen jox liggéey bon ADS toogul di xaar ADS mi ngi ci euh, formation yoo xamante ne tey ñun dañu bàyyi yoon nit ñi la jaar jël suñu yoon ñi ñu yore di leen encadré bu ñu la jëlee dañ leen dañu waxtaan su waxtaanee ba pare dañ lay former bu ñu la former pare dañ parce que askan bi tey dañ leen tàmmoon loo xamante dafa yombaloon tey boo waxee politique Sénégal ñu ne accam politique mooy pexe dafa réew politicien wala président République mooy falu ministre mooy falu député mooy falu la lool mooy falu maire bu dee politique dafa salte kañ maire bi dafa salte président bi salte ñëpp salte waaye ñun dañu gisee ne net moo tax ma ne ñu dañu méngoowul ak ñoom dañu bokkul ak ñoom dañu soppi doxalin indi doxalin boo xamante ne wax dëgg yàlla juróom benn fukk ak ñaari wax nii président grammairien falu na fi administratif falu na fi agrégé falu na fi ingénieur falu na fi mais ñooñu jàng bi santé bi suuxe na Sénégal daal màggatu màggatu nit ku feebar la rek ñun daal fi mu ne nii équipe bu jeune bu dynamique bu réfléchir bu pondéré rek ànd ak sénégalais ci biir ak bitim réew diaspora bi yëpp nag gisoog ñoom seet naka lañuy ñuy génnee Sénégal ci jafe-jafe bi toog te loolu yomb la dama ne ñetti poñ rek ñun pétrole gaz dañ koy teg fële dañu gis ne bay sàmm ak mooy secteur primaire moo yore réew parce que sénégalais yi donte bu ñu dundul bu ñu béyul jaay mën nañu béy dundee boo rombee Sénégal sénégalais béytuñu woon crise boobu mooy crise bu gën a métti sénégalais yi amatuñu lu ñu def ci biir yi métti na lool bu ko defee nag suñu déroulé daal ñun li ñuy déroulé mooy programme bu am solo bu ñu jàllee 2024 ñu fal équipe bu bees mettre ko à l'épreuve ñun duñu fi toog di campagne Sénégal lañu am lu ñu baax boo falee nit muy maire muy président muy lu mu doon du tal liggéey day toog di campagne rek je pense que ñun looyu dañ ko jël teg ko fële fu ñu jëm daal ñuy fal dañu liggéey ñu initier Sénégal yëpp ci ay projets yoo xamante ne de développement à la base ñu liggéey suñu réew ñi sàmmi ñi napp ñi béy ñi jàng mais ñu révolutionner le système de santé parce que yooyu yëpp daf dafa nekk du ñu ko waxee feebar boo xamante ne tant que équipe bu bees ñëwul dara du sotti foofu noonu am naa loo xamante ni euh, dama ko dégg léegi sa biir kàddu mooy Sénégal léegi képp ku bëgg a jug ngir bëgg a jiite Sénégal ci li muy njëkk a naxe nit ñi mooy am nañ fi gaz am nañ pétrole tubaab bi Masamba wala Mademba tey jii euh, lu ko tàmbalee tey jii Dakar ba jëm biir àll bi Touba Ziguinchor Casamance fépp àll bi fa nekk ay garab nekk fa. tool yi bari fi askan bi war a mën a dem ci biir tool yooyu ngir war a mën a béy ngir Sénégal war a a jëm kanam nga yaakaar ni instant yi nii jotul léegi fi mu nekk nii maanaam ADS mi nga xamante ni instant yi na ngir bëgg taxawal ngir liggéey Sénégal ADS xotti na ay tali yoo xamante ni tey ji ngir bëgg jël ay doomu adama ngir dugal leen fa ngir bëgg leen a taataanal ngir képp koo xamante ni am woon métier nga jaar fa ngir fa mën a jariñu ndax ëllëg boo fa jógee nekk ci leneen xam ne carrément kat jógee nga ci wàllum ADS waaye ADS tamit jógee mais am na lu ADS tamit def ci yow am nga jom am nga gëm-gëm am nga liggéey tey ji jotul fi mu nekk nii léegi yeneen parti yi nga xamante ni dañ fi jóg ngir bëgg a créer ay parti est-ce que jotul léegi ñoom ñu tas ñëw topp ci ginnaaw ADS ADS jiite leen war leen Sénégal léegi a waaw gis nga sëñ Mbara jërëjëf sénégalais dañu war a yeewu ndax euh, réew faw ñu liggéey ko te xale yi dañu ne tey pàcc boo jël Sénégal fukki nit juróom-ñett yi juróom-ñaar juróom-ñett ay xale lañ bon tey ñooñu ñoo yore doole bi mais teeloo gis xale bu jàng Sénégal ba am bakkam ba am licence am ba am master dugg ci gaal di dem lan moo gën a métti loolu dem xaru ci dem li bi ñu def ko jaam dem Maroc barki demoo Ndiaye ñu toroxal leen di leen fetal di leen dóor ay malagur comme jur sax ak ak lu ñuy waxeeti euh, sa sa sa gétt sax gétt sax moom lañ gën jox valeur tey suñu doom réew bu nga xamante ne te li metti mooy gisoo ci benn euh, autorité bu ci wax du ci kuje gi du ci ne ci nguur gi ñun nag dañ leen di dugal ci ay ay atelier de formation système éducatif sénégalais moo moo moo nërmelu ay chômeurs rek lay former ñun dañuy former ay techniciens former corps de métier yu xamante ne ku ci jógee di nga mën a jëriñ sa bopp jëriñ sa sa famille restauré lu bari ci réew mi suñu président mi koy wax le problème de la population carcérale mooy maanaam kaso yi day jël nit ku def as lu ndaw dëgg la tooñ na doole kaso yi def la fa fukki at kenn du la atte nga génn fa tey dellu fa suba système yooyu yëpp ñun dañ ci am ay ay saafara du ñu wax yeeg lépp parce que ku wax lépp ci Sénégal gars yi xam sa lépp xam fi ngay jëm mais am na ñu lu ñuy wax benn projet de société du programme projet de société boobu mi ngay ñu kooku mooy tabaxaat Sénégal bu bees bu ko defee ñun ci loolu la ñuy woo Sénégal yëpp ci ginnaaw suñu président ci nag lu leer ci lu dëgg loolu moo mën a jubbu réew kanam moo mën a jël réew bi te dañu am yaqin ne Sénégal bu ñuy tabax ñu ëllëg ci dëkk yi gën a neex ci àdduna lay doon parce que dëkku Xaadima Moustapha dëkku Seydi El Hadj Malick dëkku kilifa yi fi toor yëpp te boo xoolee amul beneen dëkk ci àdduna mais li tax Sénégal ndool taxaw fi ba tey dara la bu leeree rek méngoo ak ñu luy muy diine jullit muy diine chrétien Sénégal dina jël jëm kanam ci ay jéego yu am solo. keroog mi amoon assemblée nationale. Euh, coow am fa buuxante am fa. ba am na ay député yoo xam ne biñ ñëwee dañoo jël seen digg bopp bi lal ko seen ginnaaw di tëdd nelaw bañ na leen seen heure vote jot na ñu doog a ko dem di vote ji. tey nga jàpp ne léegi est-ce que jotu léegi assemblée nationale ñu tas ko yàqati ko bu ko defee. li nga xamante ni ñoom ñoo fa war a dem toog ngir war fa toog ngir liggéey Sénégal waa ADS ñu jël leen votel leen teg leen biir assemblée ngir ñu war a defal Sénégal wala ilaa tey ji ñu xoolaat tey ji beneen affaire boo xam ne tey ji day am ci biir Sénégal tey ji da gis koo xamante ne tey day am benn problème bu ndaw ñu tee ko police au lieu que ñu atte ko teel ko lijjanti mais duñ ko atte dañ koy jël teg ko fa teg ko fa ay ak léegi nag yow mi nga ne yaa ko dem jël tey ji tee ko fa ay at tey yow yaa ko war a dundal te tey ji am na àll boo xam ne tey mu ngi fi tey nga yaakaar ne tey àll boo tey jotul léegi état bi donte état lañ quoi garaawul ma nañ leen a bàyyi ak état ñoom tey ji ñu xottiwaat yoon yi xottiwaat àll bi jël ñi nga xamante ñoo nekk ci prison euh, ci biir prison yi yëbbu leen fa di leen bayloo chaque weer bi dee ñu fay leen ba nga xam ne kenn ku ci nekk même bu ñu la tëjee boo génnee tey di nga ko mën a génnaal loo xam ne tey ji yow ëllëg ci biir tey ji donte defoon nga dëli sax mais ci am-am bi nga xam ne jot nga ko liggéey ci bi àll bi est-ce que léegi jotut léegi ADS léegi taxaw ci benn côté pour côté boobu noonu pour war a mën a dimbali ñooñu nga xamante ne tam dañuy nekk tam ci kaso yi ngir ñu war a mën a am beneen métier boo xam ne bis bu ñu génnee kaso tam nekkaat ci leneen. waaw jërëjëf encore Amara sa question bi bu question bu am solo la te boo gisee sax dafay bi nga njëkk euh, posé day mottali bi ci bi ci topp ndax kat assemblée nationale boobu nga wax moom fa la ñuy voté luwaay ak règlement yi nañ ma baal assemblée nationale tour bi rek a fa nekk ma assemblée nationale. pencum doomu réew yi fa la ñu voté loi règlement yi mais également fa la ñuy saytoo action gouvernementale mais foo xamante ni li fa am bërki dem te ñun bettuñu ñu bamtuwaat ñetti fan balaa ñuy samp assemblée boobu invité nañu ci benn rajo ñu wax Top FM ñu ne leen assemblée bii mooy yées ci assemblée fi amoon nee na fàng Sénégalais soo ko gëm. ndax assemblée dafa am missionnaire nga war a doon tey assemblée Sénégal nañuy falee député sax moo njëkk yéem député dañ lay fay ci liste départementale ak liste nationale te député yi du parti bi moo leen fal mais président parti bi wala yaa ma neex la ñuy def ndax kat investiture mooy maanaam tabb nit ci kaw ci list dafa am lu yoon kii day nekk responsable nekk parti sangam mouvement sangam am fu mu dëkk ñu koy wax circonscription électorale mu gañe fa nekk député mais Sénégal rek la ñu gis vraiment ci démocratie yu gën a yées ci moon ci àdduna yooyu amatu fa député département ak député national mode mode boobu nga xamante ne tey dangay ngay nekk député Massamba wala ma Demba président wu lu ñuy lu ñuy ñaawlu la président bi bu demee ba moom muy fal président assemblée nationale te ñu ne constitution bi ñu am ñun république lañ doon Sénégal dootul république président mooy fal président assemblée mooy fal président conseil économique social environnemental mooy fal président ACCT fal fal lépp lu ñuy falu ci ci dëkk bi moo koy fal Sénégal dootul démocratie. tey jii ñu gis ni euh, ci biir assemblée boobu fan yii nii ñu génnaat ci ci coowu assemblée bi ba ay militaire nekkoon ci biir ba ci ëllëg sa ñu gis benn femme boo xamante ni benn femme bu xees la mel ni ñoom léegi dañuy mbëlee sénégalais yi mooy maanaam solo diw seen yaram ba seen yaram weex nekk ci biir di défilé est-ce que loolu noonu la sénégalais yi soxla ci ñoom wala ñoom ngir liggéeyal askan bi taxu ñu jël leen teg leen fa. waaw li ma wax rek dama ci dellu si amara la ko di ko baamtuwaat soo jëlee ñi la neex ñu dem assemblée def def fa yow li la neex baamtuwaat ko bii du assemblée wu Sénégal su suis désolé xëy na assemblée wu kaleen tabb la ñii xamuñu sax lan mooy rôle député assemblée yi ngay gis ministre ñëw duñu la wax ci si budget duñu la wax ci li nga réalisé duñu la wax jafe-jafe yi am ci dëkk bi mais mais député dañu naan maa ngi gërëm maa ngi sant ministre parce que ministre moo leen jox essence moo leen jox ay oto mooy li jënd seen i seen bon lii leneen la du assemblée nationale nañu ñun ADS dañu tëggaat assemblée nationale suñu fi yàlla yóbboo ba ñu gañe dañuy dissoudre assemblée nationale bi tëggaat ay élection yu xamante ne day claire et transparente wa ilaa ñu modifié wu constitution Sénégal bu dee république woo lu ñuy wax référendum sénégalais yi wax ci seen xalaat naka la ñuy bëgg tey système électoral bi doxee naka la ñuy bëgg Sénégal parce que aussi Sénégal boo ko gérer moomoo ko sa ndey moom su bàyyi ko dañu ko dénk mais ñi ngay gérer war nga leen xaar war nga waxtaan ak ñoom ba d'accord ñoom nii ak nii laa leen yore parce que askan wi kat je pense que ne fépp foo mën a nekk da nga ko war a liggéeyal. mais salaire salaire député yi salaire bi ñu leen di fay euh, carburant bi ñu leen di jox. crédit yi ñu jël ñu leen koy jox tey ci gratuite est-ce que jotul léegi ñoom ñu wàññi seeni i salaire wàññi seen i crédit wàññi seen i carburant di jëlaat xaalis boobu di ko dugalaat ci daara yi ngir askanu Sénégalais yi seen i doom yi mañ ci amee xam-xam parce que léegi jamono ji ñu toll léegi sera ngay gis léegi ku ne la état moo ñu jàppale ba njàng alxuraan waaw jërëjëf encore Amara ñu dañu am projet de société wax naa ko dinaa ci jukki benn rek ñu programme daara ñu am daara moderne yooyu day am ay unité de formation professionnelle technique xale bi di jànq daara di dem ñu koy former bu génnee am CAP bu génnee am BP bu génnee am BTS nekk koo xamante ne bu génnee rek war na mën a am métier ñun vision boobu la ñu am daara dafay jouer rôle bu essentiel ci éducation mais également ci formation boobu la am pour dellu si na ci député yi seen salaire yooyu sax dañu ko mérité wul parce que vraiment millions yooyu ñooy dox xaj na feneen ci réew mi te vraiment boo gisee nit ñi di ko xëccoo sax li ci ëpp pour koppar yooyu la ak waruwaay ma indi rek benn euh, mbir kenn ku ñu jëloon ci opposition bu bëggoon nekk député yàlla def ñu invalider seen liste maanaam moom moom yaakaaroon na que fi mu newoon alaakul day nekk député ndax dafa newoon ti nguur nguuram daanu yoratul dara mais keroog bi ñu invalider liste am ci la commencé waxtaan ak ñi yore nguur gi ànd ak ñi mu àndoon yëpp wor leen bon il faut que tey député ñu seet ko seetata ko bu baax xam ne diw bu dee amara la bu dee keneen la na nekk koo xamante ne dafay nekk missionnaire mu dem buñ ko falee mu dem nekkal fa askan wi waaye bañ fa nekkal partem bañ fa nekkal président te ñun ñi maa ngi wax ci contrôle suñu candidat duñu toog di nëbbal képp ku ànd ñun ñu jox responsabilité nga def na ko su lu noonu il faut nag que Sénégal ñu restaurer dëgg parce que ci dëgg lañ dikk mooy jëm kanam làq doom dóor doom day yàq réew du yàq askan te ñun loolu dañ koy xeex kon bu ko defee dañu bëgg a demee propre des sénégalais yoo xamante ne biir bitim réew seen loxo set na ak seen xam-xam màcc na ci li leen jox ñu mën a ànd ak ñoom changer li nga xamante tey Sénégal war nañ ko fi changer ci lu gaaw mën a liggéey Sénégal jëm kanam. élection yi passé ADS ci biir Touba ADS ci biir Dakar dañoo wan yeneen parti ni ñun duñ seen morom ADS fan la jaar. ba jëflanteeg gaa yooyu du ma leen daan leen. waaw ci ci sell bi maanaam nit jikko la Sénégalais yi leneen lañ soxla fi mu ne soxla nañu jiit yu yu yu sell jiit yiw waaye jiit yu wut ay milliards rek Sénégal ngay gis exception la monde bi foo dugg bu ñu nee milliardaire la commerçant la entrepreneur la homme d'affaires la mais Sénégal milliardaire yëpp ci état lañ jële xaalis loolu dafa am lu mu lu mu ji lu mu yàq ci askan bi tey dafa yàq askanu Sénégal dañu fulaalul liggéey boo waxee ñu ne duñ ko liggéey dañ koy lijjanti yooyu du loo xamante ne day yóbbu réew kanam du loo xamante aussi day yar day yar suñu njaboot parce que njaboot gi ñooy ëllëg te ñooñu il faut ñu yar leen teg leen ci yoon yoo xamante ne yoonu yiw la yoonu jubla la xiirtal leen ci liggéey yi parce que loo liggéeyul doo ko am ñun base boobu fondamentaux yooyu ñoom la ñu jiital fas yéene ci taxaw fas yéene ci liggéey Sénégal. yéen a ngi jëm élection 2024 ëllëgu ADS ci senegal ëllëgu ADS ci réew mi ëllëgu ADS bu ko yàlla joxe réew mi lan la ADS waajalaat sénégalais yi. waaw ci xel bu dal lañ ciy demee parce que ñun ay ay taalibe lañu ay jullit lañu dañu am yaqin ne day tegu suñu loxo mais duñ ci tiit duñ ci ragal duñ ci naagu duñ ci fuuy ndax kat ñoo bëgg liggéeyal suñu askan. il faut ñu organiser waat réewu Sénégal il faut ñu taxaw taxawaay boo xamante taxawaay bu jubla il faut sénégalais bu nekk gis boppam wala en tout cas li ëpp ci sénégalais gis seen bopp ci ADS te loolu ADS ci programme am ci doxalinam parce que weddi gis bokku ci moo ko indi ñu teg ay góor ak ay jigéen ñu yiw ñu sell ñoo xamante ne seen soxla mooy soxlo askan wi tey da ngay xool ministre boo xamante ne yaa ngi koy gis muy xeex ay politique loolu jubul donte sax responsable politique nga xeex na toj na bopp ak nangam nangam na te ñi ko fi defoon bërki dem boo njaay ci nguur gi ñu ci bëri sawaay dàq na leen parce que dóor dóor leen te ñun ñu natt suñu ministre ak suñuy député yi ci seen action politique ou politicien seen dañu leen natt ci résultat yi nga xamante ne programme bi ñu leen jox ñum ñu koy doxal ndax askan wi accepté na ko nangu na ko am na ci satisfaction wala déet mais Sénégal tey mosoo gis ci àdduna ministre bu ñuy natt parce que yaa fi dàq politique dañ leen natt ci wàllu li ñu jox ministre ministre ministre de la santé boo koy natt natt ko ci organisation santé ci accessibilité wu les soins de santé primaire d'abord ah tey bu ñu demee ba Mauritanie tey ay opération a à cœur ouvert dootuñu ko def Sénégal li ko fee Mauritanie tey ñun ñoo am faculté de médecine Mauritanie yi fi la ñu formé ah Sénégal jël na ndare nga ne Mauritanie bi te Sénégal ak fi coowu Sénégal gi toll yëpp Mauritanie bi maanaam ñoom ñoo leen di kii. ma bamtuwaan ko Mauritanie bi y des opérations à à cœur ouvert je parle sous le contrôle des professeurs agrégés de de de cardiologie Sénégal amul appareil yi nuñ ko def Mauritanie moo koy def te faculté de médecine mi ngi fii Sénégal gis nga Amara yooyu dafa ñaaw. mais milliards yi ñu jël di ko tabax ci ay esat milliards yi ñuy jël di ko jox yenn musiciens yeeg yenn bookare yi nga xamante ni parce que man léegi dafa jot léegi ngir ñu war a mën a gëstuwaat leneen nga ne appareil yooyu noonu Mauritanie bi nga xamante ni ñu ñoo leen gën a développé Guinée Bissau bi ñu ñoo leen gën a développé ñoom si suñu jëm ba ñu amee dara ñu war a évacuer fa lañ koy yëg mm, balaa may ñëwaat ma dolli la ci benet suñu aéroport Blaise Diagne bii ñuy wax di ko bàkkoo dem wuti ay financement étranger aéroport international Nouakchott moo ko tane fuuf gën ko demin dërëmu étranger dugg ci privé mauritanien ñoo def seen alal foofu et ma profité ci nag dex gis nga le le privé sénégalais il faut ñu xam ne état du moom mooy créer la la richesse état du moom moy créer emploi dañuy dooleel doomu sénégalais yi jël seen i alal seen i milliards investir ci dans les domaines ñooñu la état di dooleel état xool seen environnement fiscal maanaam di leen teg ay ay fiscalité yu ay impôts yu métti te tubaab yaa ngi fi chinois yaa ngi fi fayuñu impôt yooyu nag baaxul moo tax entreprise Sénégal yëpp ndërmal nañu kon bu ko defee ñu dellu si encore ci loolu nga ma mënoon laajaat léegi muy wàllu euh, fiscalité bi ak la loon ci wàllum li nga xamante ni tey jii mooy li nga xamante ni ñun problème bi ñu am mooy tey bu ñu waree fekk kenn fii ci tey jii ci biir réew mi. maanaam loolu man jaaxal na ma ba tey quoi. waaw faj bi tamit gis nga waaw waaw sëñ Amara faj bi. hôpital dafa feebar ni ni nguur gi feebare tey Sénégal ñaata professeur agrégé ñoo fi nekk néew ma la agrégé laax de foo làmb agrégé mu nga fa mais jumtukaay amuñu ko parce que dem lañu tëj hôpital Dantec un mois wañu tëj hôpital Dantec boo fa mosaan dem gis nga ay bâtiment yi bari ñu koy defaat di fay nañu ay dit joxe ay marché pour ñu defaraat bâtiment yooyu pareegul sax fay nañ entrepreneur pareegul sax te ñuy hôpital bi dañ koy raser xam nga yooyu dafa nekk ci politique wu làmbaatu. est-ce nekkul est-ce que nekkul ay cuune lañ ko jox. waaye dama la cuune sax cuune ba ko culaas lañ ko jox li ñuy wax planification amu fa Sénégal daal dañuy toppet ci biir ndong ci biir dara lañ dul maanaam déroulé dans le cadre d'une planification et d'une bonne organisation te loolu du état état dafa am nu koy gérer état dafa am ñoo xamante ne noonu lañ koy noonu lañ koy yore te ñun état sénégalais vraiment fi mu ne nii kenn xamatul te état bi lu mu doon. kenn xamatul Sénégal ñi ko yore fu ko yóbbu moo tax it nag wax dëgg yàlla comme que amoon nañu baatu askan bi nañu dem ba deux mille vingt quatre ñu gore delloo askan bi seen kaddu askan bi fal ki mu bëgg a fal ñooñu jël liggéey ci jàmm ak salaam je pense que loolu lañ leen ñaan te Sénégal loolee xaartu ñoom ndax kat du ma ne man mii wàcc naa ci nguur rek rek réew réew dafa war a tas dañ a jihaat dañ fa war dañ fa war a xeex déedéet ñii dañuy diggante àdduna yàlla yàlla. yërëm leen ñeneen jutu Sénégal réew la boo xamante ne sunu borom ko sàkk tàggul kenn nañ ko xam nag ñoom amul nenn nu ñu mun a fexe ba téyewaat Sénégal. tey jii euh, yal nañu yàlla defal jàmm mais yaakaar naa ne képp ku dugg sa ceebu jën war a togg ceebu jën nag mujjee togg ceebu jën nag fan nga jëm togg ko mbaxal nag defe naa nag moom la cay des nag moom dana lëmbee ci yow waaye nag am na loo ne tamit nag duñ ci yaatalaat ci yeneen mbir mais teewul tamit dinañ ci gën a xusaat ci yeneen mbir. dernier kàddu yi ak ëllëgu ADS fan la jëm ci mim réew. waaw ëllëgu ADS dafa leer nañ ci lañ doon waxtaan léegi ndax boo ba léegi dañu doxoon dox ay jéego yu rëy def avance yu am solo ñu doon xayma di évaluer fu ñu toll gën a mën a relancer suñu machine ci kaw ay tournées yoo xamante ne jàpp nañ ko fi ay tournées nationales ay maanaam taxawaay yoo xamante ne yu yoo xamante ne kuréel yi ñu yore yi dox bu baax ñu xool ko yi doxul. ñu saytu xool lan moo waral doxul bu baax a baax a baax ak yi doon dox ndànk-ndànk parce que bëgg nañu kat mécanique bi incha allah rabbi bu ñu fi jógee tey ci réunion bi mu gën a huilé mu gën a ñoŋ mu gën a daw parce que kat fi ñu jëm moom sorewul waaye sore na ndax deux mille vingt quatre soretul ay fukki weer ci des sax ak ak juróom wala juróom benn mais dañuy yeewu ñun ñetti fan rek ñu ne jot na bon ñun dañu jël suñuy matukaay ba xamante ne dara duñu bett ci kat yàlla mbaaxam taxaw nag. taxawaay boo xamante ne pare nañu pour yor Sénégal il faut que Sénégal xam ko parce que expertise bi ñu laaj mais maanaam xam-xam bi ñuy laaj mi ngi fi xam-xam baa ngi fi nit ñu wóor yaa ngi fi ñu xamante ne du ñu ay gan ci liggéey ñi ngi fi ñu duñ jël Sénégal jox ko ñu mosul liggéey tàmbale suñu président cadre la parce que c'est un médecin traditionnel mais cadre la il est c'est quelqu'un qui a des entreprises. moom moom dafa yéeme moom. mais médecine boo juróom-ñaar at ngay def moom li mu jàng fu na te ñoom ñi fi tar yëpp ku xam nañu ne moom sëriñ la du taalibe bon bu ko defee ñun ay expert lañu yoree ci domaine yëpp bu ko defee ñu dénk leen Sénégal ci lu gàtt rek ñu wan ne que nii la ñuy joxe réew parce que réew loolu la te ñu xam ne ñu nit liggéey rek moo ñu war te moom kese moo ñu tax a jóg te ci kattan ak mbaaxam du ñu bàyyi kenn ci ñun kuy caaxaane Sénégal parce Sénégal ëpp naa caaxaane ñu koy caaxaane man dama ne dañu xamul luy réew dañu xamul luy luy luy luy nit parce que lu fukki million ak juróom-ñaari nit nekk nga koy caaxaanee nga koy fooyee ngay def politique politicienne bu teye nga rof lii bu subaa nga rocc lële kooku vraiment man pour man damay jàpp ne ñi ay responsable lañu nguur kese leen intéressé ma waat ko mu nekk ci kujje mu nekk ci nguur gi ñoo xamante ne tey jot na ñu abal ñu ñi ci nekkoon sax ba toog ba cëppaandoo ga rocce ku waan ndànk parce que mer nañu parce que joxuñu leen poste direction fii Mimi Touré waaw sama sama sama sama sama xamu moom nii directement mais borom këram suma mag la moom njëkk solal mayo d'accord mais ñun du ñu jugé nit ci lien de d' affinité et de parenté ñun dañ lay jugé ci sa ay résultats euh, pour ñun dépassé nañu ay deal dépassé nañu ay compromis ay compromission dañu nekk ñun dans laction action l' action c' est quoi pour nous c' est le fait d' aller le pouvoir et de l' exercer et de faire plaisir aux Sénégalais. kontaan nañ ci yow. waaye ñoo leen kontaan di leen masaw coon encore parce que vous avez encore longtemps attendu xaar parce que yéen it ay acteurs ngeen. vraiment dañ ñaanal yàlla Amara parce que dañu fekk en pleine réunion mais am nga patience su toog xaar ñu ñu réunion ba suñu réunion jeex nga ñëw vraiment ñëw interview ñu ñu génn suñu xalaat yi nga xamante ne xalaatu simple citoyen sénégalais lañu ku ci ne fii ci ñun mën na fi ñu toog génne lu gën a rafet lu gën a lu gën a wér lu gën a wóor yi ma fi génne ñu xam rek ADS noonu la équipe la macha allah di gërëm président di gërëm tous les membres en tout cas di leen wax jaa jëf yéen waa yéen waa jaa jëf waa des ñi ci suuf ba ci kaw parce que ñi ci suuf ñoo tax te ñu nekk ci kaw ci cellules yi nekk ci àll bi cellules yi nekk ci village yi yi nekk ci fu Sénégal gën sore ñoom ñoo tax tey ñun ADS ñu am fitu taxaw temb te du ñu dellu ginnaaw ci kat lan moo tax le leader moom si jëm boppam saa bu joxe ndimbal du bëgg ko tudd saa joxe ndimbal moom du bëgg a dem te saa bu joxe ndimbal moom du bëgg a feeñ te askan bi lay bàyyi ak ñi mu nekkal ñoom ñooy dem mel ni ñoom ñoo fa nekkal te fekk na lépp moom lu waral loolu waaw ah, moom en fait xam nga nit nit xel la dafa am nooy dimbale nit ñi ñu yaakaar ne yow mi da ngay wut ñu fal la ëllëg wala dañuy wut da ngay wut jiite leen wala xëcc leen ñu lay fal moom lu muy def social la c'est désintéressé ça n'a rien à avec son action politique moo tax lépp lu mu yëkkati di ko dimbale askanam da koy jox ñeneet ñoo jox ko askan wi kooku nag ku mel noonu moo jar a wóolu moo jar a topp parce que loolu jàngat la jàngat bu am solo la kooku nit moo koy def tubaab tubaab macha allah. Euh, dimension du di na fi yëpp bés bu ko sénégal yi wóoloo ba jox ko réew mi ci lañ xam ne yéex nañ ko ko jox. macha allah yéen ko dégg kon alhamdulilah tey lii lañ leen indiloon tey ci li nga xam ne tey moom moo di kàddu askan bi yéen nag yéen ñu moom ñun nag moomuñu leen saa bu ñu jugee nag lu ne wér te ne feng rek lañ leen di indil li ñu leen di indil mooy saa su ne du ñu leen loo xamante ne amul xam-xam. wala loo xamante ne ëllëg si biir jariñu Sénégalais yi bu ngeen gisee nag tey ñu jëlaat suñu carte tey ko tey ci biir ADS bu ñu jëlaatee tey suñu émission tey jëm si tey ci biir ADS ADS dafa def loo xamante ne tey ji maanaam lu lëmbe réew mi la te day dimbale askan bi kon ngàcce ngàllaama sama nga ngàcce ngàllaama yow mi nga xamante ne tey ji la secrétaire yow mi nga xam ne tey yow lañ am ak moom émission bi kon ngàcce ngàllaama yéen ñi nga xamante ne yeneen ñiy topp tam da leen ñu topp rek foofu la booba léegi Bienvenue sur Salam Vision.